ki bërki démb def ab déclaration mel na kuy remobiliser waat li nga xam ne moom di ay militant ba noppi woote ab méga wala boog ab giga meeting fële nga xam ne moo di ca Dakar Arena ca jam ñaajo nit ki ëllëg d'abord euh, jéego yooyu noo ko gisee ci jamono ji nga xam te moom lañ koy defee ak itam euh, la nga xam ne moom la si daal di dëxëñ yëpp ne dafay woote foofu nga xam te ne di ca Dakar Arena. waaw samedi bu dellusee mooy la 17 xam nga. 19 bi bu dellusee mooy daanaka 17 bi ñëw na élection bi de daal di ubbi euh, nit ñi dem battre campagne am na droit woo waa ñu dajee ca arena ba préparer li nga xam ne mooy élection yi parce que nag coalition yi bari na lool te Pastef kese la hmm. kon moom du tëdd fee rek di nelaw mbàyyi gaañ yi di dox ci kawam dajeek ñoom ñu cotiser kenn ku nekk la nga mën a génnee génnee ko ñu battre ko campagne ndax mënoon naa jël caisse noire bi te defu ko. dinañ si ndax waa APR yi ci loolu rek lañ naan dox li mu wax leer na duma ma jël dërëmu nguur gi li ñuy campagne moom ni ñu ko daan defee la ñuy defee rek cotiser ku ne joxe ñu daal dem ci terrain bi mu nekk loo xam ne lu ñuy rafetlu la dajeeg say nit waxataan ak ñoom noppalu une semaine bu dellu see rek nga daal di nag dugg ci région yi ndax mu woowaa Ndakaaru yi ak li ko wër ñu dajee ci arena ba pour waxtaan ak préparer ak nan la ñuy demee ci li nga xam ne mooy élection yi ndax euh, waa Pastef gëj nañu dajee dajee gu mel nii. daanaka depuis ñu falu ba léegi. Hmm. amuñu woon temps ñi ngi doon liggéey. léegi nag dafa summi mbubbum première ministre bi nekk en tant que Ousmane Sonko président parti Pastef. Hmm. loolu lu normal la pour euh, préparer li nga xam ne moom la ñuy waajal daal. luñ mën a xaar ci ndaje moomee. ah xanaa fàttalante rek ndax yi fi jaaroon ndax léegi léegi léegi moom euh, du ndajem état Ousmane Sonko président parti Pastef moo toog ak ay nitam nag. Euh, ndax bii mooy troisième législatif première ba moom la woon moo jàlloon plus fort reste deuxième bi 2017 mhm. deuxième ba mu fal yi ñu bloqué liste mu dem fexe ba battre campagne ba ñu gagné tey troisième baa ngi nii troisième bii nag mooy première fois Ousmane sonk nag waaw 2019 euh, euh, maanaam mu jiite li nga xam ne mooy listu Pastef nekk ci li nga xam ne moom mooy Eh, tête de ndax dañ ko yàgg a gàllankoor sonk Sonko tête de du fi amee nangam nangam génnee nañ ko ci fichier bi tas nañ parti bi Antoine Diome def lu ko neex tey na mu war a nekk ca boobu ba diri sa yëf yi doxal fàttalante ci seen biir rek ak euh, waxtaan diisoo ak ñu bëri gëj dajee daje parce que waa Pastef yi gëj nañ dajee maanaam gëj nañ daje ci ay réunion wala yeneen boobu ba léegi daanaka daje dëgg euh, gisaguma ko fi daal bu bii. Hmm. ndax Ousmane sonk talagu koon mi ngi liggéeyal réew mi. gars yi ñoo ngi ci li ñu nekk yenn saa yi gars yi rëcc ni mais waa Pastef dajee nag ñi nekk ci dëkk bi yëpp dajee ci benn place nag loolu dafa gëj a am mm-hmm. toog waxtaan fa nag nawoon fa woon rek ñu delluwaat ci mu am lum ci woote mu di li nga xam te mu di cagnotte ya ñu faraloo lañ doon faral di eh, di def temps yi ngeen nekkee woon ci li nga xam te ne moom di ci kujje gi ñu bëri yaakaaroon ne peut-être bu ba yegg ci nguur gi loolu dina changer amaana ak moyens yi nga xam te ne yëpp eh, ñoom dinañ ko am en tant que ay autorité ndax d'abord xaaroon nga li nga xamante ne moom moo di woote boobu mu def yaa ngi doon xaar mu def ko. Mm-hmm. waaw loolu doon nañ ko xaar parce eh, lu mu toon a ñàkk la te. ni nga xam ne moom lañ daan liggéeyee mooy élection jub ñu def cagnotte kenn ku ci nekk cotiser eh, yëf yi ñu dajale ko dem ci campagne gis nga ba benn jour Antoine mosoon na génn ne xaalis yi ñuy dajale blancement de l'argent la duñ ko nangu nangam ak nangam eh, ay Kopar Express yu bari mu tëjoon leen mais nag te xaalis yooyu lu leew la woon loo xam ne nit ñi ñooy cotiser ci biir réew mi ak ci li nga xam ne mooy eh, diaspora bi loolu doon nañ ko xaar ndax toogoon nii rek ba xëy rek ñu ne dem na ci élection bi. Mm-hmm. ñëpp dañu naan dañ daan dajale dajale wuñ tey kon xaalisu réew mi lañ jël di ko campagne. Hmm. Ah, en bu ngeen éviter la. waaw moo tax tey jii nii moom kenn du ne xaalisu réew mi lañ jël ndax ku masaan toog woote am 100 millions 200 millions 300 millions wala nga soxla milliards gars yi dajale ba mu dajaloo loolu mën nga ci battre campagne te nit ñi ñoo bëgg bëgg seen bokk goo xam ne xaaruñ ci campagne bi ay xaalis nit ñi ndax ni nit ñi di def di jël ay car jël ay tiset ay cap ak façon yooyu noonu déedéet nit ñi fa ñu nekk la ñu fa ñu nekkoon démb la ñu nekk tey moo tax séentuwuñ ci ay xaalis mais nag frais de déplacement yi carburant yi oto yi ak li nga xam ne mooy restauration yi yooyu loolu moo waral lii rek waaye Sonko moom fu mun a dem nit ñi moom la mu bëgg mën nañ ko ko defal. Mhm. en moins de quarante huit heures daanaka ñu gis ne euh, dajale nañ si euh, lu jege trente millions maanaam vingt huit millions yu teg mel na ni kon engagement ba nga xam te moo fi nekkoon ba léegi yéen a ngi ci. Hmm. man daa xaw a waaye 48 heures yi moom 100 yi waroon na daanu ma jàpp de <laughs> man lu lu yeex plateforme bi parfois mu doon bloqué ndax nit ñi ci doon duggandoo. Hmm, waaw waaye 48 heures cent millions yi dafa war a tege parce que man bi ma mujjee toog ci cagnotte bi ñu doon def ci kër Maodo. Mhm. Euh, boobu ay heures yu gàtt la rek mais trois cent millions yi dafa daje journée boobu trois 300 millions yi mooy ba Antoine xawee jëfur noonu. Mhm. moo tax euh, li ñu wax ni moom xam naa blocage moo am rek waaye bu amutoon. 48 heures dama ne 200 millions day day daje wala 300 millions. Mm-hmm. Mm-hmm. beneen ponk boo xam te ne itam bëggoon nañ ko euh, waxtaanee ak yow mu di mbirum référentiel bi nga xam te ne présenté nañ ko euh, bu yàggul mu di projet bi nga xam ne moom ngeen yàgg défendre projet bi nga xam te ne moom ngeen yàgg wax ne moom mooy suqali réew mi ñu xëy bërki démb ñu présenté ñu benn référentiel boo xam ne nee nañu euh, ci ay axe lu yu toll si quatre lañ ko fas yéenee daal gi tabax sukkandiku ju ngir yóbbu li nga xam te moo di réew mi ci développement ndax yow en tant que koo xam ku yàgg défendre li nga xam moo di projet projet bi lii nga doon xaar dëgg-dëgg venant des autorités. Hmm. waaw lii lañ doon xaar parce que buñ ne projet nit ñi dañoo xamul rek mais projet dëgg-dëgg bokk na ci ni ngay def ba jël nguur gi loolu projet la <laughs> tey eh, boo amul projet dëgg-dëgg munoo xeex ba téye nguur gi boo téye nguur gi nag la nga programe woon ak la nga bindoon da nga ko defaraat tuuti joyanti ko jubbanti ko nag doo koo teg ci taabal ji. loolu moo tax ma naan bu ñu naan ay projet projet ma ni ñàkk xam la lii lañ doon xaar te lii Ousmane Sonko indi parce que bind na ci ay livre eh, lu nekk def na ko euh, yii moom mm, pour wan leen dëgg-dëgg réew mi bu ñu ko bëggee soppi joyanti ko nan la ñuy jaar ak fi ñuy jaar fan la ci projet boobu moo waral tey ca lañ dox ba tey ba jëlee fi Macky Sall moom bi fi nekk ñëw toog ci li nga xam ne mooy ngóor gi. Mm. kon moo tax ma ne la ndànk-ndànk rek lay doon ndax lu yàq 60 ans. kenn mënu koo defar ci ñaari fan ñetti fan ñeenti fan kon moo tax dangay ñëw tegal leen tuuti waaye procès bi mi ngi fi moo waral tey ñu ñu jël réew mi daal moo tax loolu nit ñi ñàkk xam la rek mais ku comprendre dëgg doo ci sori. référentiel bi génn ñu bëri di wax ne rawatina ñu fari ci kujj gi ne daanaka mbirum copier coller da ci am bi ci mujj tey rek Abdou Mbow ci conférence presse bi ñu doon euh, def dem ba génne ci téléphone euh, benn garab goo xam ne ab guy la mu ne guy gi ngeen def ci li nga xam ne ci projet bi ci guy googu ngeen sukkandikoo daanaka sax moom ngeen jël daal di fa defaat. Mm-hmm. Euh, ñu bëri di wax ne wala bokk ñoom ñuy wax ne mbirum falsification moom moo am ci li ni loolu lépp dara amu ci seeni wax dama ko gëmut beneen bi mooy bu fekkee da ngay def procès même bu fekkente ne maanaam lépp nekk sénégalais maanaam moo ñu gënal ñun nga dem jël lépp jéegaane ko jox ko tubaab yi. tey buñ toogoon fii ñu naan ah lii de ca tubaab yi lu jógee wala tubaab yi ñoo ñu ko tëggal loolu mooy gàccax waaye loo xam ne lépp Sénégal pur et dur a ba sedd loolu su boobaa moo tax ñi ciy wax boroom xam-xam yi dëgg duñ ci sori parce que xam nañu lii mbirum Sénégal la suqali Sénégal. pour ëllëg réew mi naat ba li ñu bokk ñëpp man ci jot loolu mi ngi ci procès usman Sonko bii nii te moom lay doxal te nañ ko jox majorité assemblée nationale ñu dawal fii ba cinq ans yi mat da nga xam ne waxuma la cinq ans waaye cinquante ans yi ñuy wax cent ans sax mën nañ ko fi toog mhm. Mm-hmm. ñu kon daal di euh, daanaka rek daanale ci li nga xam te moom moo di ci mbirum nomination yi nga xam ne njiitu réew mi mu ngi koy def boobu ba léegi itam am yenn yoo xam ne daanaka soxal na leen donte parce que ñu ngi wax imam Cheikh Sall euh, mu di euh, ki nomination ki nga xam te moom di Jim Dramé ca bopp maanaam ca direction du pèlerinage nomination yooyu ak ki nga xam te moo di bu direction des affaires religieuses ñaari nomination yooyu noo ko gis gisee en tant que koo xamante ne ku yëngu ci wàllum diine la. Mhm. Euh, jërëjëf Mohamed euh, direction religieuse bi président de la république dafa waxoon ne dinaa ko taxawal ci pale bi mu geral ko li nga xam ne mooy mbiru diine def na ko comme ni mu ko waxee woon waaye bu loolu amee ñu ne kan moo ko jiitee ñu ne Jim Dramé nekk fële université fële ci waaye ñun dañu bëgg a wax ne ñun xamuñu kan mooy Jim Dramé. donte xam nañ ko ni ci biti gis ko di dajeeg moom léeg-léeg ci séminaire dañuy wax ni niñ ko niñ ko falee ànduñu ci parce que 2021 wala lu ko jiitu ba léegi dafa amoon